salaamaaleykum mbokk yi xibaaru guddi si li si nar a gën a fës. Birama Ndiaye. bokk na ci li ci nar a gën fës policiers yi nga xamante ne dañoo dem à la retraite ñoom nag seen njàqare bokk na ci logement yi nga xamante ne dañ leen ko bàyyi ñu daal di sàkku ci njiitu réew mi mu daal di xaatim kayit bi koy wone balaa li nga xamante ne moom moo am ca terme sud di leen di euh, dal moom la ñu daal di yëkkandi tey jii foofee ca Kaolack dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi. lu jëm ci wàllu dem beeg dikk bi foofu itam ca Kaolack daal dina tagga témbe bu baax a baax ndaxte nag gis nañ ne liggéeyu assainissement yi ñu fa daal di nemmeeku tax na rek lépp la fay dem di dikk di am ab gàllankoor dinañ ci teewlu ña nga xamante ne yekki nañ ci kàddu ci yaatalu xibaar niki tey jii la ñu doon daloo sànq la nga xamante ne moom moo jëm ci wàllu autopont ak pont bi nekk fii ci Saint-Lazare ak cité Kër Góor gi loolee nag ginnaaw fukki weer ak juróom-ñett ya nga xamante ne daal dinañ coo liggéey tax na rek lépp lu jëm ci wàllu dem beeg dëkk bi dina ne yàmbalang ni ki tey ji ginnaaw biñ ko daal di daloo dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi lu jëm ci wàllu euh, fanweer ak juróom-ñetti gaal fibre ya nga xamante ne en verre lañ ko daal di joxe nekk tey jii ci comité de ko de pêche yi lu toll ci fanweer ak juróom-ñett yooyee gaal nag gis nañ ne day tëmb ci biir géej bi mënut a diig loolee kàddu yi jëwriñ gi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllub napp bi di ngeen ko teewlu ci yattalu xibaar yi li ni mel ci boole yeneen xeetu xibaar wax sa xalaat lu ñuy waxtaane bokk na ci lu jëm ci wàllu wàllub mbas mi mbëkk mi ak yit lu jëm ci wàllub centre de redressement yi ci 88 lay doon 628 98 98 biti réew 33 841 22 33 Pape Abdoulaye Dieye moo féete ci xarala Birama Ndiaye. sant leen gërëm leen di leen tatagan ci teelu bi ngeen di teelu seen rajo Sud FM 98.5 ngir taataan fi xibaar yi tey nekk talaata juróom-ñetti fan ci weeru décembre atum ñaari junni ak ñaar fukk yooyu xibaar ñu doore ko ci njàng beeg njàngale bi rawatina ci watub budget jëwriñ gi ñu dënk lépp lu jëm ci wàll wi li jàpp na ne nag lu toll ci ñetti junni jàngalekat yu bees dina leen jël niki atu ren ji lim boobee nag dem fekk ji lu toll ci juróom-ñeent fukki junni ak juróom benn juróom-ñetti téeméer ak fukk ak ñaari jàngalekat yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk fi mu ne nii ci wàllub jàngalekat yi niki tey ji la ko daal di xamle moom Mamadou Talla foofee fi nga xamante ne moom mooy ca pencu ndaw réew ma di assemblée nationale assemblée nationale boobee sax gafam daal dinañ ko uh, natt ci lu toll ci exercice atum mille 2021 juróomi téeméeri milliards yu toftal juróom ñaar fukk ak juróom ñaari milliards yu toftal juróom ñetti téeméeri million ak lu tekk ci wàllub autorisation d'engagement lu jëm ci wàllub crédit de paiement itam moo ngi toll ci juróomi téeméeri milliards ak ñeent fukki milliards ak benn yu toftal ñaari téeméeri million ak fukk ak ñaar euh, ci suñu ak fukk ak benn million lu toftal juróom ñaari téeméeri junni ci suñu koppar niki sànq lañ daal di àddu foofee ca assemblée nationale loolu jëm ca wàllub njàng beeg njàngale bi euh, section Pikine ak géejewaayu kisam si niki ëllëg itam fa seenee nañ amal débrayage bu fukki waxtu jotee buñ ca noppee def ci assemblée général niki ëllëg àllarba ji yem ak juróom-ñeenti fan. niki alxames yi itam dinañ ci am ab grève total yoolee rek ngir daal di sàkku ñu fay leen bépp ndàmpaay bi nga xamante ne dañ ko waroon a jot ci wàllub examen BFEM ak bac yi. Euh, kon niki ëllëg lañ koy amal foofee ca Pikine ak Géejawaay waa section CUSEMS ñoom ñoo koy amal session logement ci niveau wàllu camp de garde ak cité police mouvement national police à yi ñoom ci seen wàllu bopp ak ñëpp ñu ci daal di bokk nag daal di nañ fësal seen njàkkare ci fànn boobule ndaxte dañuy tiit lu daloon waa terme sud daal di leen dal ba tax rek ñu daal di sàkku ci njiitu réew mi mu xaatim loole laata lambaya ñaaw Mamadou Camara. alkaati retraité yi nekk fii ci Sénégal ñoom kat seen xel dalul ci li leen njiitu réew mi digoon police tamit camp de garde yi looloo tax nag ñuy gën a ñaax njiitu réew mi di président Macky Sall mu xaatim ci kayit ba mu leer dige boobu mu doon décret boo xam ne bi mun na leen aar aar seen njaboot Cheikhna Keita moom moo jiite alkaati retraités yi bokk ci mouvement des policiers à la retraite tout corps confondu nekk fii ci Sénégal. ñuy xaar ëpp na presque quatre ans recevoir nañu en audience nañu naat installé une commission le 22 mars muy dimanche le lundi 23 Abdoulaye Daouda Diallo moo Sénégal doomu alkaati la te deful dara dañ ko bàyyi noonu tey ñu toog ma interpellé ko ci du rax lu ñax laan ko dafa am ñoo xam dañu nekk ci camp de garde yi nga xam dañ ko hérité en 69 ñu réhabilité bâtiment yu bon ya fa nekk ak dem lebi banque wala ñu day def leneen ak leneen waaye tey dama bëgg mais maa leen may d'accord force de loi la mais jël décret pour mu wane ne maye bi lu wóor la parce la soldat yi euh, terme sud de ñun bëgguñu ko ñun da ñooy dugg ci terrain ak di morcelé morcelé jaay ay siwir ñu tabax may bu génn la am ñoo ñoo war a génn. nee nañ sax am na commission boo xam ne bii samp nañ ko pour mu liggéey ci loolu waaye dañoo bëgg a mbir mi gën a bar pour nag ñoom bu ñu tëddee mën a nelaw Kaolack Mamadou Camara Sud FM Mamadou Camara ñoom police yooyu à nag ñoo ngi sàkku ñu daal di leen fay seen pension militaire seen prise en charge ci statut bu bees bi itam ak yeneen commission yi nga xamante ne euh, dinañ ko dindi ndaxte gis nañ ne nag bëri na ay lënc lënc ci wàllu boobee rawatina lu jëm ci wàllu pour revalorisation ci seen grade yi seex naa kay tax ñu teewlu ko ci micro Mamadou Camara. ñun ba ñu maintenir trois ans note tutélaire du contrat bu ñu signé ak autorité bees bi ne cinquante cinq ans ñu dem

promotion te dañ leen déshabillé woon no 34 dangu seen échelon tey la 37 nekk brigadier ñoom ñu nekk na fan nekk négocier la pension militaire de retraite la loi 66 nekk ci corps de la paix bu ñu retraité nañ leen jox pension militaire les mêmes dispositions defaat ko ci le nouveau statut à la loi 2009 1 tiré 18 du 9 mai 2009 article 41 bis décret 490 du 28 mai 2009 ñu koy appliqué gendarmerie lan mooy pension militaire boo defee ñaar côté juróom am ñu teg dañ ko war a calculer comme des années de campagne au double mention yi fi nekk nekkoon ci corps bi retraité avec l'ancien statut dañ leen a war a révaliser ñuy ñaande tey la loi 81 52 du 18 jan 18 juillet 81 à corps bu changé statut bu amee état dañ ko war a jox 60 Senghor statut bu ñu français bàyyi loolu mu changé ko indil ñu beneen statut ancien yi dañ ci bénéficier tey pourquoi pas ñu toog lu ëpp ñaari ay bés a ngi nii dem beeg dikk bi daal di tagga tembe fa Saloum lu ko waral bokk na ci liggéey ya nga xamante ne office national de la l'assainissement moom ma ko fay amee camion gros porteurs yi taxi ak itam nit ña nga xamante ne dañuy dox ci seen wàllub tànk fi mu ne nii ñoom ñooy xat-xatloo ak su néew yoon ba fa daal di am Pape Ndour moo nekk président régional regroupement chauffeur yu transporteur yu nekk ca Kaolack muy dànkaafu ci fànn boobu lay jàpp ne nag war nañ faa defal yoon ba nga xamante ne dañ fay xel di teggee ñu teewlu ko ci micro Mamadou Camara. fi mu ni camion yi ñoo jaar buntu police buntu hôpital jëm baaba Gueye dañoo obligé di wër di jaare ci morgue hôpital ba te foofu boo seetee tolloog euh, jumaa juma Léona Niassène bi euh, karo yooyu ñu defoon euh, tëli bi. commencé na yàqu parce que prévoir ñu ko woon pour ay camions mais camions yi ñu ngi koy daj te lii bu ma sañoon sax boo fi jógee nga dem filmer ko ba ñu xam ni moom ma ngay yàqu donc euh, pavage bi yàqu na yeneen yi ñu ngi jaaree côté marché te produit yi ñuy yeb produit toxique yi ñuy jaar ci marché bi te camions yi ni ñuy chargé côté marché yoon wi ñuy jaar baaxul day nekk di basculer donc yooyu yëpp nekk na ay danger yu ma constitué ci biir Kaolack lii rek dafa wane ni def voie de contournement boobu dafa jaadu dafa jot te waratu ko passé jamono yi ñu toll donc ñuy lancer appel au président de la république ak euh, gouvernement ak képp koo xamante ne autorité nga te sa wax gën a gudd suñu bos ñu ngi lay ñaan daal vraiment pour que nga fexe ba voie de contournement boobu euh, doon lu nekk ci dem beeg dikk bi fii ci ndakaaru oto autopont yu kër góor gi ak Saint Lazare niki tey ji lañ ko daal di daloo pont yooyu nag ñoo ngi ko daal di tabax lu toll ci fukki million ak juróom-ñett ci euro loole ñoo ngi ko xayma ci suñu koppar lu toll ci fukki milliards ak benn ñu toftal juróom-ñaari téeméeri million liggéey bi nag daal dina euh, am lu toll ci weer ak juróom-benn euh, at ak juróom-benn weer noone niki tey ji lañ ko doon daloo ci teewaay Aysatu Gueye ba léegi leer na nañ autopont bu nekk fële ca axe cité Keur Gorgui ak bu nekk ca cimetière Saint-Lazare daal dina nen tijji officiellement gannaaw ba ñu toogee euh, fukki weer ak juróom-ñett di ko tabax te koppar biñ ci def ñu xayma ko ci lu toll ci dix-huit millions d'euros euh, maanaam onze milliards sept cent millions ci suñuy koppar. Mansour fay mooy ministre des infrastructures des transports terrestres et du désenclavement. pour ñëw ubbi maanaam yoon bi nga xam ni moom ma ñuy wax euh, autopont bu nekk Saint-Lazare ak autopont bu nekk Cité Kër Gorgui ñëpp xam maanaam pont bi ubbiwoon nañ ko mais dafa am ay liggéey yi nga xam ni moo nekkoon ci côté bi mooy yeneen voies yi nga xam ne ñuy dugg ci quartier yi tëjoon leen parce que liggéey bi parlu woon waaye gis ngeen liggéey bi nu mu rafetee. nu mu jekkee ci lépp nag. Dakar nag xat lool ñaari autopont yi naam sax dina wàññi lii di embouteillage yi. suñu fexee ba nga xam ne manière globale circulation bi dana am dana yomb loolu ci loolu nag am na benn kuréel bu ñuy wax bu nga xam ni dafay étudier maanaam le plan de circulation surtout au niveau de la région de Dakar fexe ni ñuy defaraat plan de circulation bi ak ouvrage yi nga xam ne am na pour yombalal askan bi seen. seen jóg ak seen dem donc loolu dafa nekk lu am solo te loolu président de la République joxe na ndigal joxe na ay orientation joxe na ay instruction pour ñu liggéey ci loolu donc loolu moo waral maanaam protocole yi am mais mooy waral aussi ñu liggéey ak les forces de sécurité et de défense maanaam la police et la gendarmerie pour a def régulation de la de la réguler la circulation. waaye itam noppal ñi dëkkee ci boor yooyee. te lii dana tax ni ñi nga xam ni quartier yi nga xam ni Sacré Cœur Cité Keur Gorgui dañ doon sonn ci maanaam déplacement macha allah léegi déplacement boobu dana yomb ci ñoom donc ma leen di sant bu baax aussi ci muñ li nga xam ne muñ nañ ko depuis dix-huit mois environ. ab cérémonie d'ouverture boo xamante ne kii di ministre su Faye moo ko daal di jiite waaye ànd ci itam ak ay collaborateur am ku ci mel ni Ageroute bañ ci noppee nag jóge foofee ca autopont ak cimetière Saint-Lazare fële ca autopont bu Yoff la ñu daal dem foofe nag mu mel ni yëf yi yembagul liggéey bi nag mi ngi toll ci quatre-vingt-dix pour cent liggéey boo xamante ne décembre deux mille dix-neuf la daal di tàmbali xaalis biñ ci def nag toll ci treize millions d'euros. téeméer boo jël juróom-ñeent fukk yi la ñu daal di liggéey foofee ca autopont bu nekk ca yoof boobee sax jàpp nañ ne wala jëwriñ ji nag daal dina xamle ne fii rek ñaari ay bés dinañ ko daloo maanaam ñaar fukki fan ak ñett ci weeru décembre gi ñu nekk lu mooy loolu nag autopont bu nekk ca Lobat Fall foofee ca pikin ni ki euh, ndorteelu atum 2021 lañ koy daal di daloo Mansour Faye ñu teelu ko Aïssatou Gueye Ba ñu mu nekk liggéey bu am solo ñu ñoon fii doon def de chantier mais visite bi euh, maanaam c'était tout simplement pour gis pour mën a constater que pont bi daañ ko livré maanaam oto yi daañ ci mën a daw fu lekk fukki fan ak juróom c'est-à-dire le 23 décembre au plus tard donc loolu la ñu techniciens yi wax euh, mu nekk liggéey bu am solo Dakar bir nay ay autopont yoo xam ni maanaam programme bi réalisé na ko jóge nañ léegi cité Keur Gorgui gis Saint-Lazare bii fileeg 15 jours dana pare bu Lobat Fall aussi fileeg ci premier avant mars 2021 bu neex yàlla dana pare lii nag liggéey liggéey am solo la ci ndigalu président de la république comme ni ñu koy waxee toujours donc dana tax ñu amee oto di dawal fii ci dakaar seen dox seen dawalin dana gën a yomb embouteillage du am ou bien dana wàññeeku ci lu bëri bëri programme bi nag programme am solo la parce que da ngeen wax programme auto point yi nga xam ne entreprise matière moo ko liggéey. ci euh, ci supervision AGEROUTE donc te loolu euh, circulation Dakar gëm nañu bu liggéey yëpp pare neex yàlla circulation bi dana wàññeeku dana gën a ci nu mu gën a baax. lu dalee ni ki ndakaaru ak yeneen i diiwaan gis nañ ne itam lu jëm ci wàllub autopont yi le ak ay yoon dinañ ko fa amee pont bu marsasum foofee ca euh, diiwaanu bët saalumu réew mi ak itam dorteelu liggéeyu jululu pont bu nekk ca jululu ak bu bay la yooyu yëpp bokk na ci nga xamante ne bépp gox-goxaat bi nga xamante ne dafa daal di ruqe loolee dinañ ko fa daal di génne dañuy teewlu kii la di Mamadou Alassane kamara moom la ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu yoon yi ñu teewlu ko ci micro satu Gueye ba. gannaaw Dakar projet bi dafa am euh, volet désenclavement euh, boo xam ne dafa concerner principalement ñaari région mooy région bu Matam ak région bu les régions du sud. Euh, ci biir région du sud yi euh, am na pont bi nga xam ne ñu ngi koy tabax à Marsassoum pont buy def 500 mètres la ci fleuve bi nga xam ne diggante euh, en tout cas zone boobu bag moo fa nekkoon léegi population yi mun nañu xaar en tout cas ci lu yàggul trop parce que Covid bi am na ji gàllankoor ci ci liggéey bi waaye entreprise bi jël na dispo matuwaay yi yoo xam ne ne permettre na ko mu continuer di avancer moo tax nit ñi sentiruñu trop blocage en tout cas travaux yi fii ci biir Dakar. moom la ñu def aussi côté bële am nañ modification technique yu tax aussi mu xawoon yéex tuuti mais alhamdulilah aujourd'hui mun nañ wax génn nañ phase boobu donc travaux marsage mi ñu ngi avancé am na yeneen ñaari pont yoo xam ne ne dafa nekkoon pont yu yàgg te nekk une voie euh, nga xam ne ne benn oto rek moo fa mun a jaar ñaari oto mu mënuñu tase mooy pont bu jululu ak bu bay la projet bi dina ko jël en charge ñu tabaxaat ko mu am beneen pont boo xam ne ne war nañ ko tabax au nord ci dëkk bu ñuy wax Nabadji Civol dans la région de Matam Euh, pont booboo fi bokk na ci projet loolu daal mooy li nga xam ne ne programme bi nga xam ne ministère des infrastructures sumb na ko pour améliorer en plus des projets yi nga xam ne ne ñu ngi fi muy BRT muy TER pour améliorer vraiment les conditions de mobilité des populations ci wàllub gox-goxaat yi la ñuy des rawatina foofee ca Ndar jëwriñ gi ñu dénk lépp lu jëm ci fànn boobule demoon na fa teewe ji benn CRD ndaje ba nga xamante ne dañuy wanale plan national d'aménagement et de développement territorial maanaam tëralin gu yees gi ñu fas yéene dagat pàcc pàcc lëlee di gox goxaat yi képp ku nekk xam fa nga yem ak nes lañ def ba daal di ko gimil Omar Gueye foofee daal di na itam euh, daloo élus régionaux yi ñu daal di ko yeggale la nga xamante ne moom mooy seen wàllub jafe-jafe ci fànn boobule. Yves Tendeng lii di incohérence territoriale yi maanaam jafe-jafe yi ñu fara nemmeeku ci ñàkk yemale gi ci diggante gox-goxaan yi daanaka doon na luy te lool ñi nga xam ne ni ñooy maire yu jiite commune yu diwaan gi muy mbir bu nga xamee ni itteel na itam ki nga xamee ni mooy jëwriñ gi ñu dënk wàllum collectivité territoriale développement ak aménagement des territoires di Oumar Gueye. par rapport à certaines préoccupations qui sont évoquées ici notamment les incohérences cohérence territoriale Sénégal am na ko loolu moom c'est une vérité absolue ni ñu tëggee suñu collectivité yi am na problème jamono dafay dox te ku yor pouvoir di ko exercer da ngay xool toujours fan la intérêt dëkk bi féete fan la intérêt population yi féete nga def un mel moo waral sax campagne nationale bi mu tëral te mu indi ko fii ci Ndar te liñ ci mébét bokk na fi fexe ba gën a fësal plan national bi ñu tëral ci wàllum aménagement ak développement territorial. muy plan bu agsi ci waxtuwam bu ñu sukkandikoo ci kàddu kii di adjoint administratif bu gouverneur bu Ndar di Xaadim An mi nga xamee ni fàttali na coow gu bëri gii di fara am ci wàllum suuf si. mu nekk loo xamante ni ñun dañ ci kontaan bu baax parce que it ci saint yaakaar na lu jëm ci wàllu problème mu euh, foncier dañ ko fi jànkonteel bis bu ñu xëyee daanaka dinañ ñu diggante dëkk ak dëkk sàngamkat am na fa ay problème parce que xamuñu fan la dëkk bi yem wala dëkk bi fan la yam outils yi nga xamante ni présenté nañ ko bu ñu ko jëfandikoo yaakaar naa dinañu permettre ñun ñu mën a passé loolu nga xamante ni moom mooy ay problème conflit foncier. moom mu dellu di ñaax élus locaux diwaan gi ngir ñu def bi les plans seeni moomeel bopp. donc ñun ñi nga xam ñooy acteurs yi muy autorité administrative muy ñi nga xamante également ñooy euh, autorité des collectivités territoriales maire président de conseil départemental ak euh, ñi nga xamante ni également ñooy service technique yi donc ñun ñoo ko war a approprier wu. doon jokkoo ak yéen fii ci Saint-Louis Yves Tendeng Sud FM. Yves Tendeng ca ndar boobee xanaa rek ñu daal di dugg ci géej gi noo ne lu toll ci fanweer ak ñett ak juróom ay gaal yu ñu defaree ay veer la ñu daal di séddale ni ki bésu tey ji fanweer ak juróom-ñett centre maanaam comité local de pêche artisanaux. ñoo ne nag gis nañ ne embarcation yooyu maanaam xeetu gaal yooyu day tëmb dumb na a dikk bu ñu sukkandikoo ci jëwriñ gu ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu pêche ak lafay fay ci géej gi di alindooy Ndoye ñu teewlu ko ci micro Amadou Moustapha Dieng kon élément bi yembagul di alindooy Ndoye niki tey jii la ñu doon joxe lu toll ci fanweer ak juróom-ñett ay gaal yi nga xamante ne dañ ko tabaxee ay verre maanaam euh, fibre ci de verre loole nag ñoo ngi ko daal di séddale lu toll ci fanweer ak juróom-ñett comité locaux de pêche artisanaux gaal yooyu nag gis nañ ne moom moo gën a dëgër gaalu looco ak itam gaalu bant yi bu ñu sukkandikoo ci jëwriñ gi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu pour napp ni ki tey ji la ko doon daloo di Alioune Ndoye dinañ ci dellusiwaat ci suñu xibaaru français yi nga ànd ceeg sa Eliman wan niki tey ji itam lu jëm ci wàllu wàllub euh, recherche chef de l'état njiitu réew mi Macky Sall euh, lañ ko daal di jox premier prix bu programme thématique recherche santé muy àddu ci wàllub wërgu-yaram projet fédérateur boobee nag ñu duppee African Life Story of Covid 19 maanaam Euh, lu jëm ci wàllub dund nit ñi ci taarix ak itam lu jëm ci wàllu wàllub mbas mi noonee nag professeur Fatou Bintou Sarr nekk enseignante chercheur université bu Iba Der bu Thiès. moom nag moom moo ko daal di amal projet boobee loolee nag moo ngi amoon ci teewaayu Denisia Samb. compétition bi jafe woon na loolu. ci fukk ak ñaari projet wu recherche yi nga xam ne déposé woon nañu ko jury bi premier prix bi mu ngi ko jagleel programme thématique de recherche santé bi nga xam ne biologiste enseignante chercheur bi di Fatou Bintou Sakh nekk ca université Iba Der Thiam bu Thiès moo ko jiite woon. di sant euh, son excellence monsieur le président Macky bi mu def yi tey suñu moo jël première édition prix bi mu nekk projet boo xamante ne dafa dajale ay gëstukat yu bëri nga xam ne pàcc yu bëri ci feebar bi la ñuy seet maanaam ci mbirum euh, feebar bi nu muy ñëwee ci yaram bi est-ce que bokk na si dëkk yëpp est-ce que jaww ji am na ci solo est-ce que mala yi am na solo bëri na ay pàcc yoo xam ne dañ ko bëgg a seet moo tax euh, ñu def projet bi. prix boo xam ne mu ngi toll ci juróom benn fukki million ci suñu koppar ñu jëlee kan ci fonds de financement recherche njiitu réew mi Macky Sall di xam ne nag dina dugalaat yeneen téeméeri million jàppale recherche bi. je me réjouis am naa mbégte xam ne ne ni koppar googu ma leen jàppale woon nag da ngeen ko mujj def dépôt jagleel ko fonds wu gëstu bu CANES. may jaajëfal bu baax a baax secrétaire général bi ak it ñi nga xam ne ñoo bokk ci CAMES. 2015 500 millions laa leen joxoon ma leen di xamal ne tamit 2020 dinaa leen jàppale waat ci yeneen 500 millions. secrétaire boo xam ne nag njiitu réew mi fësal nag jàppale wàllum gistu bi waral professeur Jacques-François Maringou di coordonnateur ci programme thématique bi ci wàllu santé di ko rafetlu xew-xew boo xam ne nag ñu ngi ko amaloon. na ci Diamniadio ca centre international de conférence bu jam Diamniadio fa nga xam ne lu toll ci ñeenti téeméeri jàngalekatu IHA teewoon nañu fa Diamniadio Denisia Sambo pour Sud FM Denisia Sambou niki bésu tey ji la ñu doon màggal fukkeel bi yoon ak juróom-benn journée bëccëg gu ñu jagleel tirailleurs yi noone nag armée bi ci wàllu boppam daal na delloo njukkal bu baax a baax ndem si yàlla ja di professeur Iba Der Thiam mi nga xamante ne saa su ne moo ngi doon fexe ngir rek ñu daal di gën a wegg lii la di tirailleurs sénégalais yi. général Jean-Baptiste Tine nekk haut commandant de la gendarmerie nekk itam directeur de la justice militaire mi fa teewaleen jëwriñ gi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu pour l'armée gi ñu teewlu ko ci micro El Hadj Moussa Thiam. tey dañu fi ñëw ci bésu journée la journée des tirailleurs bi nga xam ne mu ngi ci fukkeeli édition ak juróom-benn muy fukki at ak juróom-benn yu ñu koy commémoré ak bu nekk mu nekkoon loo xam ne professeur Iba Der Thiam daanaka moom moo ko inspiré woon moom moo indi woon xalaat boobu ba fexe ba bés boobu am boobu muy amee ba léegi daanaka moom at bu nekk daan na taxaw témoigner di fàttaliku di fàttali ñëpp li nga xam ne tirailleurs yi moom la ñu indil askan yi moom la ñu indil adduna si sëpp ci ñaari guerre mondiale yi passé woon muy 14 18 ak 39 45 Iba Der Thiam wane ci xam-xam bu rëy wane ci xarañ bu rëy ab li li nga xam ne daf ci nekkoon seen nëbbu ñu xare bëre xamuñ ko mu xamal ñu ko mu nekk loo xam ne dañ ko dañ ko yokk boole ko ci li nga xam ne moom la ñuy tàggate suñu soldats yi pour gën leen yokk ñu xam seen bopp gën a xam kan la ñu nekk gën a xam li ñu war a def gën a xam ni ñu war a taxawee ba nga xam ne léegi muy Sénégal muy ci biti xame nañu armée Sénégal forces armées Sénégal ci jub ci am fit ci am fayda ak ci euh, respecte fulaal nit ak yellefam professeur Thiam wax na ko ci ci ci ci suba am na ay valeurs yu bëri yoo xam ne naqari na pour man peut ma répété ko ci wax mais am na fit mu ngi ci fayda mu ngi ci jom mu ngi ci sutura mu ngi ci lépp loo xam ne gis nga ko ci nit ñu baax ñi nekk ci Sénégal yaa ngi koy gis ci ci railleur sénégalais yi te ñu dañuy fexe ba di ko tugal ci soldat sénégalais ci militaire sénégalais te am yéene aussi ni mu nekkee ci soldat sénégalais ni mu nekkee ci militaire sénégalais mu nekk ci citoyen sénégalais yëpp mm. foog naa jàngat boobu mm-hmm. moom lañ ci war a gën a gën a jàpp valeurs yi nga gis ci tirailleurs yi dafa nekk valeur yoo xam ne dañ koo jële ci sunu askan dañ ko jële si ñu baax yi nekkoon Sénégal warul des ci biir militaire kese dañ ko war a bokk Sénégal bi ñëpp tàggat yaram basket Dakar Université club nag dafa bëgg a delluwaat ci caaf rek ngir rek daal di teewal Sénégal bu baax a baax ñoom universitaire yooyu nag fi mu ne nii ñoo ngi ci wàccaay gu am solo foofee ca Mbour ci ndimbalu directeur bu yees bi bi nga xamante ne moom la ñu dénk. Euh, di kudd loole ci teewaay Moustapha Sall. basket bi day Dakar Université Club ñoom li ñu bëgg mooy delluwaat ci dendu Afrique amal fay jongante loola nag ngir ñu mën caa yegg faaw rek ni ñu ko daan defee lépp lu ñu teg fii ci mim réew ñu daal di koy gagné El Hadji Touré moom mooy yore wàllum basketball ci Dakar Université Club. sooy wax basket Sénégal c'est le Dakar Université Club nous sommes le club le plus aussi au Sénégal nous sommes l'un des clubs lu ñuy chercher mooy gis ngeen déjà suñu recrutement maintenant le reste déjà c'est du travail avec la les directions techniques et avec le, soutien déjà affiché du directeur de COUD yaakaar naa ne déjà c'est objectif bu ñu atteindre. directeur COUD bi ñu tabb bees daal di xam ne ne moom dana te ay koppar yu doy mu daal di koy teg ngir ñu daal di mën a àgg ci seen xemmemteef yooyu lee Maguette seen ku nekk xam na ne nag kenn mënul bëgg dara te doo ci def dara donc comme bëgg nañ ko parce que investir ci équipe ay millions te du indi benn trophée daanaka perte la bëgg soit da def wala nga ñàkk donc je crois comme suñu objectif objectif équipe mooy gagner ay trophée mais lii tax muy gagner trophée na nga ko def donc là dinañ xool dans le cadre de l'équilibre budgétaire et dans mesure de nos possibilités dinañ fexe ba en tout cas du accompagnement bi muy xaar pour que trophée yi mu bëgg mu indi enquête xamale na leen ak seen i moroom nuyoo leen ak seen public ak supporters yeeg dirigeants yi ñoom nee ñu daal seen xel dal na. Seynabou Faye capitaine du Dakar Université Club incha allah pare nañ ko pour matale ko ndaxte directeur bi lim ñu assigné te war nañu mi ngi suñu ginnaaw di ko ñun ñoo ci des def li ñu war a def ñu def ko si terrain bi incha ñu indi ndam yi ñu ko bëggee copier incha directeur bi ak dirigeant bi ak ñu ngi laaj ñu nekk suñu jëmmal bu jigéen ñi Dakar Université Club ñoom ñu ngi koy waajal bu baax a baax ñoom daal wax ji benn la mooy daal nañu toog fi ñu nekkoon ci basketballu Sénégal mooy jël lépp lu nga xamante ne rek dañ ko fi daal di tekk Moustapha Sall Mbour Sud FM. Moustapha Sall ci wàllu Ligue des champions fi mu ne nii match bi dox diggante Juventus ak Barcelone Juventus dugal na ñetti bal. ci dara waa Barcelone match bi sax ñoo ngi wéy yeneen match yu wéy ci jamono sile bokk na ci Rosenborg Sport dóor na Manchester United ñaari bal ci dara waa Chelsea dañoo temb ak FC Krasnodar Euh, lii lee di ren moom itam FC Séville moo ko dóor ñaari bal ci dara euh, Dynamo de Kiev moo dóor benn bal ci dara France Varoso lu jiitu loolu nag bi nekki tàkkusaan Lazio de Rome ak Bruges dañoo tombo ku nekk dugal ñaari bal Zenit Dortmund su Borussia moom moo ko daal di dóoru ñaari bal ci benn 88 lay doon 628 98 98 biti réew 33 841 22 33 mbëkk mi mbas mi ak centre de redressement yi ban jàngat ban taxawaay ci réew mi asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. El Hadj. Sud FM. waaw. Birama ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaar El Hadj Aline Wilane Géejawaay Sam Notaire. ñoo ngi lay fay El Hadj Aline. waa ñu ngi lay delloo euh, bu baax. Mhm. Birama dama bëggoon wax rek mi. muy coronavirus bi. Hmm. Birama man damay wax rek sénégalais yi surtout nag ñi nga xam ne ñoo nekk ci diaspora bi na ñu gën a wekk feebar bi gën a wekk sénégalais yi te it bàyyi noonoo gi ñuy indi ci wàllu feebar bi ci wàllu politique ci ni ma ko mun waxee ndax jàpp naa ne ñoom tey fa ñu nekk ñu ngi respecté mesures barrières yi nga xam ne teg nañ ko mais ñoom boo xoolee tey diggante démb ak bërki démb ak fan yi nga xam ne feebar bi presque dañoo wax ne euh, dafa jogaat. ni ñuy communiquer dafa mel ni dañoo bëgg a yàq xelu nit ñi wala boog dañoo bëgg a sacrifice doomu aadama yi ndax tey bu ñu toogee di wax naan euh, boo gisee tey virus bi ñu ne euh, dafa dafa dellu siwaat nekkaat ci euh, forme boo xam ne par rapport ak bi mu nekkoon ne nañ loolu communication la boo xam ne ne nañ état moo ko bëgg def di préparer vaccin yi ñu war yi ñu war a jaay au niveau dem mondial loolu wax bu tegul kenn la ndax yaakaar naa ne ñoom lañuy ñuy dund muy Amérique muy Italie muy Espagne muy France ñu koy dund wet lool loi yañ fa teg wax dëgg yàlla waruñ toog ñoom di tourner nag seen réew di leen di leen nasaxloo feebar bi di wane ne lii dañuy prévoir pour vaccin bi loolu loolu drama loolu wax bu ñaaw la nañu def ndànk bañ Macky Sall ak contre ko ak indi affaire politique warul tax ñuy taxaw di nasaxal lu ngir mu jëm ci wàllu wàllu wàllu euh, pandémie bi euh, te yaakaar naa ne nag boo xoolee ba xool ñoom kon mel na que ni ñoom maanaam yéene gi ñu yéene euh, Macky Sall ci lu bon moom la ñu yéene waat askanu Sénégal ndax nañu xool nag ñoom communication boobu ñuy def te li nga xam ne moo ëpp solo yaakaar naa mbas mii euh, xeex bi ci Sénégal xeex munuñ cee xañ ndam Macky Sall te gëm naa ne nii ñu jëlee décision ci wàllu masque yi ci kàttanu yàlla incha allah feebar bi day dellu gannaaw beneen bi ci topp nag lu jëm ci wàllu euh, mbéris yooyu mm-hmm. maa ngi wax rek ne ci bàyyi. jërëjëf euh, El Hadj Alioune Wilane Guédiawaye Sam notaire ñu daal di jël keneen ci ligne bi asalaamaaleykum allo. Alhaji Ibrahima Ndiaye. waaw Malick. maa lay ziar ci loo ne. ziar. mais ma yaa ngi jàmm. sant alhamdulilah. waaw maa ngi nuyu Baye Mor Gueye teeru rajo bi maa ngi ko nuyu bu ngi lay fay. ma ne Birama takka mas ci Birama maa ngi def sama poste juróom-ñaari mas waa xam nga daa may takka mas ah. xam na ne police yi police yi dong laa bañ ma daal ba ma su Birama itam man see war a dafa a jaaxal sama xel mi ci ah, du caaxaan wallaay dafa jaaxal sama xel xam nga tax Birama Ndiaye. mën na maa man dama ci gis maanaam bi ak ñaari ñaari nit ñoo ñoo dee ci géej gi ak ñu ñàkk deret gaay gaay ñu ñàkk deret yaa ngi dégg tey ñu ngi yóoxu ak maanaam ñaata jigéen ñoo dee ci hôpital yi ñu am doom Burama Ndiaye te du ma dégg mukk gaay di ci wax ba ba léegi Burama man daal danaa takk samay mag daf ko sama poste daf ko sama poste ngir ngir lan ngir bañ police yi teg ma ay daan waaye Burama la mu waxoon démb laay waxaat tey nañ ñu bàyyi ñu liggéey nañ ñu bàyyi ñu liggéey nañ ñu bàyyi ñu liggéey nañ ñu bàyyi ñu liggéey wasalaam jërëjëf jërëjëf Malick Cissé Medina Park ñu daal di jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98. salaamaaleykum. salaam. Alaaji Birama Ndiaye. waaw ajaratu. maa ngi lay nuyu di la di nuyu waa Sud FM yëpp. ñëpp a ngi lay fay. jërëjëf ñaan jàmm ci réew mi di ko ñaanal sénégalais yëpp. affaire mbas mi daal li nga ciy wax. Mhm. ñoom bu ñu bëggee nit ñi takk masque en une demi heure la. li ñuy def ci télé bi di ko def feneen suñ ci jëlee mesure nit ñi dañuy takk masque tey client bu dugg ci oto ñëw di dugg ci oto takk sa masque. boo demee ba ca biir oto ba nga tekki masque ba chauffeur bay dawal moom man na koo ba a gis kon bu bu bu bu bu bu bu bu nuy bu nuy bu nuy bu nuy sanction client ba moo war a fay su dee chauffeur ba takkul masque na na chauffeur ba fay bu dee client ba takkul na client ba fay mais nit ñi moom jamono yii nu toll li ñu nekk doy na sëkk bi laa ma jaay hmm. mais dañu bàyyi nit ñi ñu liggéey bu ñu fi tudd buñ ko jéem sax laa la wax ay couvre-feu yu mu doon mënu ko xalaat sax seen xel nit ñi dañuy liggéey ndax li ñuy dund doy doy na sëkk ndax ñu am lu nu lekk wa am lu nu naan ci liggéey bi lañ koy amee nan bu ñu bëggee nit ñi takk masque danañ ko takk mais couvre-feu moom duñu ko xalaat mukk Sénégal jërëjëf Birama nekkal ci jàmm. jërëjëf Ajaratu Soda Dieng ca Touba ñu daal di jël keneen lu ñuy waxtaane bokk na ci mbas mi mbëkk mi ak itam sant de redressement yi asalaamaaleykum. man la Anna Mendy di woote parcel Assainies. Anna Mendy di nuyu di nuyu waa Sud FM yëpp. ñëpp a ngi lay fay mhm. ak confinement fii ñu toll suñu économie réew attanu ko nañu takk masque yi mooy tax yëf yi jóge fi mu ngi fi demagul fenn lépp lu ñu mën a def lépp lu ñu doon def démb lépp lu ñu doon moytu démb ak barki démb ci feebar bi tey lañ ko war a gën a moytu gis nga ki doon wax ki ku woote woon démb ci ngoon naan nañu jël benn dimanche wàccee ci ay kaamil xalaatam rafet na baax na kon na président kon na ko président ñaan jumaa yi wàccee kaamil catholique yi ñaan ci église bi bi ci des muy vaccin yi ñuy ragal vaccin yi ñun ñëpp jaar nañu ci ci ñakku moo ñu aar ci yenn feebar yi bii tam am nañ ci yaakaar te nañ ci rafet njott bu baax dañu war a bàyyi lu génn rek opposants yi Sénégal lu génn lu ñu génnee lu bees rek ñu yàq xelu askan bi loolu baaxul ñoom nañuy xalaat li ma leen doon wax nañu xalaat ñi am seen mbokk ñu tëdd ci hôpital yi ñi am seen mbokk ñu génn àddina ñi seen liggéey yàqu nañu xoolaat te ñaan ndax ñaanuñu yàlla deuxième vague bii ñëw ndax bu ñëwee ñun ñëpp lay yàqal ñu surtout ñun baadoo lay de xëj na ñi am am nañu ba pare du leen wàññi dara bi ci hmm. des mooy nañu lu bu baax kon ma ko waxee rek ñu góor góor lu ci mas bi ñun ñëpp ndax lii suñu intérêt lu ñun ñëpp yéen waa Sud FM amuñu seen fay tey amuñu seen fay ëllëg bés bu ne yéen a ngi ci di ñaax askan mosu leen a découragé benn yoon maa ngi ñaan jàmm ci réew mi di ko ñaan ñaanal président Macky Sall fi mu bëgg a eggali réew mi ci lu baax yàlla na ko yàlla jàppale ba mu eggali ko lu kawe njortam boo xoolee waa bitim réew ñu ngi sonn ba bëgg a dee ñooñu tey ku taxaw naan leen feebar bi amul ak di saboté nañu loolu lii rafetul yenn yi moom iñaan ak soxor la ah garabu soxor ak iñaan bu amoon pharmacie ñu jënd ko jox leen merci merci Birame. jërëjëf euh, Anna Mendy ca Parcelles Assainies ñu daal di jël keneen ci 88 lay doon 628. 88 88 sant alhamdulilah. Boy Malika mooy woote ni ngeen booy ah Boy Malika waa ñoo ngi lay fay. Birame ñaan fajul aajo day dëgëral yaakaar rek. Hmm, déet waay. wallaahi maam Cheikh Ahmed Tidiane su ma ko wax ñaan fajul aajo day dëgëral yaakaar rek. Hmm, ñaan ba dee te yi war yëpp dëgg dëgg taxu taxu ko jóg. dara tous di saluer au passage Serif dégg naa intervention ak saa si xam naa ni xol bi xawoon naa tàng ko mais nag euh, dëgg dëgg la tudd maam Cheikh Ahmed Tidiane si day day wax nii wax sa dëgg ak xuloo nekkul benn sévère ak soxor du benn. xam nga li mu wax ni yaakaaram dafa tas xam nga yàgg naa wax fi di dugg ci ci antenne bi naan yaak suñu yaakaar yëpp a tas mais loolu moom moo am loolu moo am mbas mii yàlla na ko fi yàlla jëlee jàmm mu jeex tàkk mais Birama Sénégal ñaar moo fi am feebar ak ñàkk moo am ci réew mi feebar ak ñàkk yaa may déglu bu baax. Birama naka la Mansour Faye bi nga xam ni moo yor ministère des infrastructures xaw ma terrestre xaw ma gaal yi kii euh, oto yeeg. saxaar yeeg ak yenn équipement yi nangam ak ñu voté ko budget plus de deux mille milliards deux cent et quelques mille millions de francs CFA. ministère de la santé bi nga xam ni moo fi nekk tey ak corona bi xam li ma la waroon lu jóg tey ci askan wi ñi nga xam ni dañoo feebar ñu koy voté ay budget xaw ay sept cent et quelques mais loolu yanu na maanaa ci ay tali ah. ak i ak i ak i teer ak i lu kenn xamul yu ñàkk faydu dar gaañoo ay chantier yoo xam ni du ag tey du àgg ëllëg askan yu feebar askan yu ñàkk mais xale yi naka la ñuy mën a def ba du ñu dem ci mbënn mi xale yi dañoo sonn dégg naa tey sa ci ngoor ñu naan xawma ñu ngi joxe ay gaal xawma mais ay gaal boo ko joxee ci géej gi xale yi amuñu lu ñu napp ci géej gi lu muy jariñ géej gi ci boppam moo vide amatul dara xale yi buñ leen joxoon gaal yu bees ak gaal yi nga xam ni dara mënu koo yàq këru àddina na di mënuñu ci dara ñaar moo am Sénégal feebar ak ñàkk te dëkk bu mu am ndóol dugg na nañu waxante dëgg ku ëmb sa sanqal nag ëmb sa kersa Chérif tey li mu wax moo yoonu maanaam mooy dëgg jërëjëf jërëjëf booy Malick ñu daal di ko jaajëfal jël keneen ci 88 628 98 98 salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah monsieur Birima. Diop. na nga def di la nuyu waay di nuyu waa Sénégal. ñoo ngi lay fay. mbokk Italie yëpp. waaw maître Birima. waaw. góor gi si Yoff yàlla na yàlla yeesal njëgal ci moom daana wax naan am na ñoo xam ne war nañ leen yóbbu centre de neurologie. li tax ma wax ko dafa am koo xam ne moom pour waa eh, bitim réew intervenir rek xolam day baax. waaw ñun ay sénégalais lañu dañuy wax sunu réew pour lu ko jëmee kanam. gënuñu ñu nekk foofu ñun fii dañ fee nekk rek di daan sunu doole wax dëgg yàlla bu ñu jeexalee fi rek dañu jàll ñibbis moo tax ñu bëgg sunu réew tegu ci yoon. bu ñu intervenir sa sa sa biir daw nag mais dañ lay wax yàlla na yàlla xol may xolu muñ ndax ñu il foo ñu intervenir pour suñu juree jëm kanam rek nag lañ ci jublu te yàlla rek tax maa ngi jégalu euh, di wax ne Birima. monsieur ma mm-hmm. maa ngi lay dégg waaw. waaw di wax ne rek euh, mbiru mbas mi. Mm-hmm. wax dëgg yàlla vaccin yi nga xamante ne avec le nouvel mode ordre mondial na ci Sénégal def attention bu baax waxoon naa ko démb ndax fii en Europe y a Euh, front anti vaccin waaw kon nañ ci def beaucoup attention dañuy wax pour ñu pour ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu jël suñuy garde bañ ñoo def loo xamante ne ëllëg conséquences yi sawaay du ñu xam fu muy fu muy fu muy kii avec la nouvelle ordre mondial nañ def beaucoup attention wàllu mbëkk mi nag ñu politique bu bon dong moo ñu ko yóbbee jaay nañ suñu géej gi nappkat yi amatuñu lu ñu amatuñ jën yu ñu napp jaay nañ suñu hmm. suuf si baykat yi amatuñu lu ñu bay suñu ressources naturelles yëpp saaxee nañ ko tant que ñu ngi saax saax suñu alal vraiment di njuuj njaaj di calculer ay prochain euh, élection suñu réew mi di dem fenn dañu war a liggéey liggéey réew mi te yàlla tax te bàyyi njuuj njaaj rek alal ji ñuy sàcc loolu rek moo ñu téye maa ngi jéggulu jërëjëf Diop woote ca Italie biti réew 33 841 22 33 mbas mi mbëkk mi ak centre de redressement yi la ñuy waxtaanee salaamaaleykum allo. waaleykum salaam euh, Birama. waaw. alaaji xaas mbay la Mbacke bool. alaaji xaas waaw. maa ngi nuyu sëñ Moustapha Diop Patrice di ko ndokkeel ah, Birama. waaw. xaw ma Birama caaxaan mënut weesu. nga ne nga ne nga ne damaa nekk Europe la damaa nekk benn tugal ne Sénégal moo ñàkk fi am ak xiif wala ñàkk fi am ak xaalis moo am Sénégal moo am Europe moo am Asie moo li am fi moom fépp c'est-à-dire que yi dañoo tëllawul ay niveau tëllawul lu ñuy def xam nga budget moom nattuwaay la. di seddu xaalis bu ñu jël jox la ne la demal bëgg nañoo def nangam ku ne xam na ne transport ak aérien nag stress li mu ëmb bokkut ak santé santé ku ne xam na ne Abdoulaye Diouf Sarr li mu ci def amul benn ministre de la santé bu mos a jaar bu ko def. beneen bi des président Macky Sall bi ñu ñëw ci réew bi ñoom dañ ne réew mi li ñu fi Abdoulaye Wade tabax du ko mën a pentir tey bu ñu demee ba ay ñaari junni milliards kon ñoom wedd dinañ seen bopp. ga mbëkk mi ñuy wax nag ñu koy wax fii ñëpp kenn du ci jël sa doom dem wala sa soxna dem wala nga dem ca te ku ne am nga doom am nga am nga jabar am nga ndey am nga baay kenn du dem di mbëkk nan baay seen caaxaane xale yi ñuy bëgg a xiir mille ne cent soixante ba joon yàlla yi tey suñ suñ nappkat yi lañ daan nappe ba léegi moom la ñuy nappe tey dem naa ne ñoom su fekkee ne bëgg nañoo amalé tey mën nañoo wut ay gaal def ay station mais kenn wóorul sa bopp kenn ku ne bëgg yor gaal goo xam ne gaalu joow gaalu nangam gaalu nangam xam nga nit kenn xeebul métier mais nañ dañoo war a dépassé moo dal ci commerçant yi moo dal ci ñi di ngal ngali moo dal ci ñuy wax ñëpp kenn ku ci am nga roq boo xam ne kenn du ko bëgg ko wax Malika jii tey jii fi ne waa dëkk ba léegi réseau antenne dong la ñuy jooy te kenn doo dégg ku leen ko waxal nekk fa ngay liggéey da nga koy ñog ñogal keneen ku nekk fa mu liggéey nga bëgg koo bara loolu du ngor du jom nan bàyyi seen caaxante wax dëgg man ngaa nekk France ñu tekk loolu bas nga ne mbas mi am na fa Sénégal nga ne mbas mi am fii loolu ay caaxaan la yàlla jëne foofu moo ne fii mais moytu yàllaa ko santaane Europe ku fa nekk lan la teg ci ak lan la teg ci yaa ngi koy def duñ siy sart duñ dañuy dakk ceinture bu ñuy dawal Sénégal boo fi ñëwee ne Sénégal moom dëkk Sénégal la rek lu ma neex naa def lu ma neex naa wax loolu ay caaxaan la nan ba seen caaxaan yi te ñaan ci réew mi jàmm réew mi nag jàmm jafe amoon tey la gën a am salaamaaleykum taala bari jërëjëf Alaaji Xaas Mbay ca Mbàkke yi ñu da Mbàkke Bawol ñu daal di jël keneen ci ligne bi asalaamaaleykum. maaleykum salaam. alaaji Birama maa ngi lay ziar. delloo ziar alaaji. man la ala alaaji Xaaye Guèye. waaw alaaji Xaaye maa ngi leen di nuyu waa Sud FM yëpp. di nuyu ah. waa Darou Guèye Sancou Sine. ngeen làkk ak dëkk leen wër. man la mbirum mbëkk bi laa bëgg wax. Hmm. ndax tey jii sama xol dafa sedd bi ma gisee le ministre de la pêche ànd ak CERN mooy kuréel mooy euh, société bi président Macky Sall teg muy liggéey gaal yi. gaal yi kaw si kaw kaw si yi nga xam moo gën gaal yi bant yi. mu ànd ak bu baax a baax a baax. ñu dem jox ci ay xale 28 gaal booleeg yéen defan euh, bëkk dem mbuur loolu mooy wane ni kon programme président Macky Sall programme bu dëgër la na xale yi xool loolu nag te xam ni balaa loolu sax jëkk naa dimbali moo li jëkk naa dimbali waa géej gi ndax motorub gaal bu waaye jënd wàññi woon na ci un million de franc te loolu yóbbul loolu moom moom moom moom lu am solo la mbir mi li xew ci géej gi nag bu ko kenn jiiñ euh, jaay nañ géej géej jënduñu ko ndax at ñi mool dëkk ci géej gi xam nañu heure bii jën di daan demee nii saa yu géej gi seddee Sénégal géej jënam day daw mais bu naaju tàngaat bu ñëw parce que jamono jii keesug yabooy daan nañ ko jënd lu mat fukki junni voilà lii taxaw li ma xam naa ko te dina dem ba yabooy di nga ko jënd kees 300 beneen bi nag président Macky Sall programme bi mu teg pour xale yi bu ko xale yi fàtte gis nga bu coow dëggee dëgg réer man gis damay gis ñoo xamante li ñuy waxal Sénégal ak li ñuy waxal réew mi dafa mel dañ ko bëggul ay programme lañ teg pour xale yi deere ngi joxe ANPEJ ngi joxe Euh, fonds ba ngi joxe te loolu lépp xale yee ko moom ak jigéen ñi nañ dem seeni programme yu bancable ñu dem ñu financé leen te bañ a ñuy wax gis nga kuy jooy du nax kuy jooy de te ñoom li bëgg ci réew mi mooy réew mi labajoo réew mi jaxasoo xam nga tey ji li ministre transport def inauguré inauguration bu rëy bii ci ñetti autopont yi am ci kër góor gi loolu am solo te loolu programme président te ñoom dañ ne moom li fi président Macky Sall def mënu bàyyi ñu naan xeer yaa nga jëm ñaan ñu dem roñ ko léegi projet yi bis bu ne muy immigré xanaa président Macky Sall kay bu doon président moom ko neexal sax tey ji mu dem immigré ji waaye daf bàyyi ak Mansour Faye mu dem immigré ko loolu mooy programme loolu la ñu digal muy yoonu yokkute président Macky Sall yàlla na ko yàlla yokk wér bilaay bu ñu ko ñàkkee dañ tàllam bëccëg di ko wër te duñ ko gis kenn du moom wasalaam jërëjëf Alaaji Xaaya Gay ca Caaroy sur Mer ñu daal di Ibrahima. Ah. waaw. ah maa ngi bu baax di eh, wax ne waa bitim réew seen seen participation am na solo lool waaye nanu góorgóorlu ñun ñëpp ñu wegante rek. Mhm. waaw loolu ëpp solo man damay toog ba bëgg a bàyyi wax sa xalaat bi ndax kàddu yu ñaaw yi mu fi dégg li may wax rek mooy sama xalaat laay waxuma xalaatu kenn que sant yàlla bu baax ci. li yàlla subhaanahu wa di boole ay xol ñuy ànd léegi li ñuy ñaan mooy ci mbas mi mooy nanu delloowaat yàlla subhaanahu mbir mi ñaan jokk yokk na yaakaar waaye addu'a huwal ibaada wa du'a muxul ñaan mooy silaahul mumin mooy ngannaayu jullit boo demee ba jàkk ba jaaxle ci dara da delluwaat ci sa borom nga ne ñaan amu fa njariñ xool leen lu mel nii mbas mi fu mu toll nii li ko fi mën a jëlee mooy delluwaat ci yàlla laa wax képp bunt yëpp fëgg nañ ko benn bunt amul njëriñ maam Seydil Hadj malik bi euh, euh, feebaru test bi sonnale Sénégal ak addina mhm. dafa delluwaat def tawarsul ci yàlla fala budda min shakwa ilallahi kurbati mooy yàlla yow rek laay jooytul tey suma suma njaqare bi bi bi ma dal moo tax ma ne nañu delloo yàlla mbir mi ñu ñaan yàlla def nañu lu ne nag may terminer di wax ne masque yi ñuy defloo nit ñi nañu góor góorlu ba mu yomb ñëpp su boobaa képp ku ko deful it di nga xam ne yow yaay yaay yaay responsabilité bi. Hmm. wasalaamaaleykum. jërëjëf Djibi Sow ca Parcelles Assainies ñu jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98. salaamaaleykum. waaleykum salaam. ñu ziar na ngeen def. delloo ziar kooku. wax sa xalaat de moo tax ma lay woote man damaa bëgg ñu teg ko ci wax wax wax ci réew waaye bàyyi politique bi ñu ciy dugal. Mm, noo tudd ak fooy woote ñu nekk ci réew mi Macky Sall kenn bañu ko. waaye ku wax wax sa xalaat jëm ci réew mi rek ñu koy xëy daal di lay daal di keneen ku ne jóg dugg lu bëgg daal ci kawam loolu daal la ñu bàyyi ko wax yi jëm ci réew mi. ku mel ni Malika ñoo ngi koy siyaare bu baax euh, booy Malika wax yi ñu wax yëpp bëgg leen la koy teg waaye fu mu waxee rek bu eggal wala ku mel ni moom ay lañ jógee fële yaakaar ne ko euh, mi il faut ñu wax ko xam ne moom lañ ci xalaat waaye nañ bàyyi politique bi ñu dugg ci waxtaan ndax lii moo ko tax a jóg man nag Sénégal dama la laay waxal maa ngi jégalu baax a baax di wax ne maanaam mbas moom am na amul ñun Europe fii li liñ fiy dund Sénégal bokkul ak fii parce que fii di ay moyen ay jël seen seen seen engagement yi foo doon dugg ci ab kaas tey kaas bi boo ci duggoon dañu laa wax fii ngay toog fii kenn fi toog yëpp ñu ko réglé école bi boo demee école dafa fekk benn taabal boo xam ne dana fekk ko bokk euh, euh, benn xale moo fay toog benn moo fay toog ci xam nga loolu amu fa te loolu état moo ko war a def Macky Sall nag euh, ñun ñun bañuñu ko mais suñu réew mu yor mu yor suñu alal lañ ci joxe suñu xaar ndax am nañ suñu xaar duñ ci mën a joxe. Hmm. ku nga xam ne ne lii mu àndee ak Macky ak ak Idrissa Seck du ak bëggante ñoo ko ànd moo tax ñu ànd du bëgg Sénégal moo tax ñu ànd loolu lañ ko dañ ko war a leer te te waxuma la Macky Sall programme yi ñu teg yëpp waaye ku nga xam ne ne euh, waxuñu la deuxième mandat troisième lay yuutu troisième mandat waaye quatrième lay yuutu parce que kese mooy Idriss Seck mi waroon taxaw taxaw si diggante ak ak ak moom dootu dootu saqat euh, kii ñu euh, ngi naan ñu ngi wax ak Khalifa Sall Sonko na nëgëm boppam nëgëm bopp ndax ni ñu bañu ñu ko Sénégal yi bëgg nañ ko taxam naa ne moom sa su nekk nii ñu ba ñu ba mag Sall ba ñu Idrissa Seck mais Sénégal lañ bëgg. ñu bëgg suñu réew mi bi ak ñu xale yi na ñu bëgg réew mi soppeeku baax a baax. jërëjëf jërëjëf mbokk moom may wootee ca euh, biti réew ñu daal di jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98 asalaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw El Hadj. Ndiaye na nga def waay. sant alhamdulilah. <laughs> na nga mhm. waaw. li fi barrières yi ñu jël moom amul masla amul fi jëkkër si moom daal nañ nañ nañ ci teg ab yàgg ci kawam rek takk masque yi mënoo takk masque fu ñu la tekkee li war teew ñu def la ko bu ñu la waree alamaan nañ la alamaan bu ñu la waree jël yu bu ñu la jël yu loolu dong moo koy réglé en une journée mën ngeen réglé lépp bon maintenant gis nga ay problème euh, leçon de morale yi joxe nii ne leen won san passé la part wala ba mu jàll si ñëpp ñun duñu ay bàyyi ma dañoo xam fii wax ak fii li barke borom Touba laa wax gis nga benn waa ngi oote man la wax man Alaaji Góor Njaay yoo nekk Italie moom ci boppam moo tax ubbi ba ba mu diw xarab comme ña xam na nga ko xarab ne dama ne su ma neexoon léegi dama ne ñu nga la wàjjo a bi nga di fi gërëm Macky Sall di ma gërëm man di bi day metti nangam nangam loolu mooy lan man boo nekkee Italie boo nekkee Sénégal yow man sama daw ma génn réew mi fii laa juddoo fii laa màgg si fii laa fas yéene dee benn yoon mooy dem Màkka ñëw toog jeex na amut nekk fii di mbedd dem ci kaw da nga wax ba bañ noppi a noppi léegi moo ñu ñor fii suñu njaboot suñu nekk suñu suñu ndey suñu bay suñu nañ suul ku ci jàqata ba daw ñu wax ci wax sa xalaat rek bàyyi yooyu waaw waaw ku nekk na am aussi xol bu yaatu bu waxee xalaatam bàyyi moroomam wax xalaatam ci noone lañ ko daal di tëralee ci 88 lay doon 628 98 98 biti réew 33 841 22 33. ki la jox nga lekk bëggul nga dee jàpp naa salaamaaleykum. Birama Diop ziar naa la. delloo ziar alaaji. nuyu la nuyu sa équipe technique baaluwaat ñëpp àq te baal ñëpp àq. tey jaalewaat euh, honorable député Adjaratou Soda Dieng euh, mbokk moom fi ba mooy. Mhm. l' ministre de l' yàlla suñu borom bi jéggal ko xare ko àjjana ak ñi jiitu ci ñëpp. Mhm. loolu nga wax aussi loo am solo la nan bàyyi ngeen ñi véhiculer seen xalaat. ñi contre am nañ droit joxe joxe seen position mais nan bàyyi aussi ñi ànd ñoom it joxe seen position léegi askan wi déglu ñoom kenn dofut lu mu ci mënti doon ku nekk boo joxe sa xalaat rek defal sa débat d'idée ñiy déglu ñoom mën nañ tranché un point surtout ala kulli àll ñi contre moom dañuy contre ala kulli àll ñi ànd daan ànd kon kenn mënu ko benn mënu ci sa xalaat rek jërul ñi roobee ñaayoo bi ba tax na aussi te mhm. feebar bi jërul polémique mbas mi am na wala amul loolu jërul coow lu bëri jërul wax ju bëri ñi koy déngat ñoo la gën a xam ne existé na yàlla ñëpp xam ne suñu borom am na mais am na ñoo xamante ne gëmuñu ko kenn mënu ci dara waaye bitim bis bu eggee bis penc bu boobaa danañ xam ne yàlla kenn la kon su ne feebar bi duggaan na ci réew mi ñu on crée une deuxième vague waxuñu dara lu dul moytu leen takk leen mas euh, jël leen ay gel te ngeen moytu loolu dafa yomb trop loolu moo gën ñu dem ba. affaire bi ëpp ñu doole am na réew yoo xamante ne dafa am ay confinement Italie am na confinement partiel États-Unis boo demee waxuñu sax deuxième vague on parle d'une troisième vague France am na confinement partiel euh, Espagne yi yeneen dëkk yu mel noonu bala ñu nag ñu eggaat foofu ci dëkk yooyu jël suñu matuwaay sukkatu tey yóbbu kenn say bati woo nan moytu rek waaye ñu takk takk leen masque rek lan wax te ngeen ne moytu loolu dafa yomb jërul politique yi jërul Macky Sall nii jërul Idrissa Seck nii jërul Massamba nii jërul ma deema nan moytu rek réew mi fi mu toll nii économie bi dafa xawa a moytu leen balaa affaire bi du duggaat ci réew dañu faagaagal loolu jërul commentaire bu bari Birama ngir yàlla ku waay mën a moytu moytul loolu dafa yomb. Mhm. jërëjëf Birama. jërëjëf booy Hadj ñu daal di ko jaajëfal jël keneen. kenn ci liñ bi asalaamaaleykum. Birama Ndiaye naaf yoo waay. waxal ñu ci ginnaaw ne yaa mujj. gaa yi dégg nañ la. waaw bu fi bu fi saxayaay nag. waaw saxayaay moom yooyu moom ay wax la rek. waxu lébu la dama ne. Mhm. président Macky Sall ku ko jàpp am na mbër ku ko wan gannaaw du dem yow li nga woote pour tembi sa gars yi waxuñu si dama ni euh, maam am na lu ma waxoon dafa ni téeméeri gàtt benn yottu kel moo leen di jubbanti moo leen sàmm mais doomu aadama yi kenn ku nekk da koy indil yatam loolu foog gars yi xam loolu Birama Ndiaye wax sa xalaat la ñu wax mais waxuñu wax sa xam-xam xam nga yaa ma bu fi wax sax yaay kon loolu lu ko ci indi euh, bon xam naa li ko ci indi dama ni ñun waxuñu kenn dama ñu ministre de la santé dafa liggéey ci mbas bi liggéey bu am solo ku wax feeñ nag ci politique ku wax feeñ ci politique nañu bàyyi ñuy def président Macky Sall moo fi lu kenn deful suukar la ku ko bañ doon ndékki foog gaa yi xam loolu liggéey na ci liggéey bu am solo maire Malika liggéey na ci liggéey bu am solo loolu la gaa yi bañ dégg lii tax ñuy noppi yàlla yéex gaa yi du ñu mës a noppi woon naa la coow li du kanam la jëm président Macky Sall kenn du moom foog gaa yi xam loolu comme ni ko xaayee waxee ginaatu topp mukk borom mat bala ma noppi ñëw de ko njal de ko njal jërëjëf Mbaye laay ca Cambérène ci moom la ñu yëkkatee jotaayu xibaar yi sant leen gërëm leen gërëm bu baax ñi woote ak ñu jotuta woote ñu doon teewlu yéen itam ñoo ngi leen di gërëm di leen sant ci kanam tuuti bu 22h jotee xabsali wan wan ñëw ak yéen ci xibaar yi ci yaatal ci français lay doon gërëm bu baax Pape Laye Dieye mi féete woon ci xarala gi sud nutri sud éducation moo ñu wutu ci togg gi ñu leen di ñaanal palaanu bu jàmm.